est-ce que ñoom ba ñu ba ñuy promettre ne dina ñu wàññi denrées de première nécessité yi ils étaient pas au pouvoir xamuñu woon la réalité du ah, pays ah, okay. parce que euh, aujourd'hui avec avec un taux d'endettement de 76 pour cent ñoom ñu soxla tàllal loxo bailleurs yi pour ñu jàppale leen euh, am aide budgétaire mën a euh, mën a faire face aux aux aux fan la ñuy jëlee lu ñu wàññiwaatee lu ñu wàññiwaatee njëkk te loolu yéen leen ko fi bàyyil Euh, xam nga may mën a bàyyi yeneen leen ko fi bàyyi. ñun dëkk bi li ñu fi bàyyi. bàyyi ngeen fi benn waaye tamit bàyyi ngeen fi bor bu bari dëkk bi liñ fi bàyyi. alal ju bari la te dégg nga ñu wax ko ñoom wax nañ ko FMI wax na ko ñeneen wax na ko donc je pense que côté boobu moom amuñu problème muy benn. beneen bi mooy euh, may mën wax naa la ko sànq ñun on sera pas dans l'opposition boo xam ne dañuy saaga dañuy xaste comme ñoom niñ ko doon defee. di wax wax ju bon di sos on sera dans l'opposition républicaine opposition républicaine mooy suñu boussole mooy doon bon gouvernance ak li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggu askan bi loolu mooy doon suñu boussole amul leneen loo xamante ne ni dinañ ko loolu moo tax tey jii comme ni ma la ko waxee xam nga nee naa la teel na ñuy def état de lii waaye teelul pour ñu artu teelul pour ñu wax ne ah ñoom kat ñoo ne woon waa déglu ma ñoom kat ñoo ne woon bu ñu ñëwee certaines responsabilités yenn poste de direction yi dañ koy def appel candidature yi am solo yépp jox nañ ko seeni ñooñ loolu bañ ma ko mais bu ko wax parce que loo xamante ni xam nga ne doo ko def jarul koy wax parce que on savait man personnellement mais j'applaudis des deux mai pour que quand président Bassirou Diomaye Faye ñu fal ko moom Ousmane Sonko ñu ñëw. jël seen i nopp waaw déglu waaw ah, déglu ma déglu ma ba mu pare jël seeni nit fal leen ñu ànd gouverner parce que nag aussi dénkaane ko wóolu waaye may mun a looy dem naan damay def appel à candidature yow loo xam ne xam na doo ko def loo koy waxee xam nga loolu. xamuñu ko c'est important waa déglu ma bàyyil xamuñu ko woon gis nga réew. waa déglu ma réew du caaxaan. na <laughs> ko réew du kër. réew boo ko dee laaj je pense que réew boo ko dee laaj. c'est parce que war nga am lee mécanisme yi nga xam ne moo lay permettre soo ñëwee nga mën a doxal la nga xamante nii moom nga diggawoon parce que je pense que aussi c'est important pour que ñu xam ne Sénégal toll foo xamante ni lu ñu fooy la il faut que quand même les gens ñu sérieux dans ce que nous parce que aussi cet teta dañu ko fekk ci ay loxo yoo xamante ni nii am liggéey bu am solo boo xamante nii def nañ ko sur tous les plans sur le plan des infrastructures sur le plan de la santé sur le plan social sur le plan de l'éducation sur tous les plans tey boo ñëwee war nañ la wax ne président def na nangam mais yow boo dee laaj pour que réew moom nga jëmalee ko kanam waxal loo xamante ni boo taxawaatee ci kanamu Sénégalais yi di nga mën a wax la lu moo tax tey en attendant le premier ministre bu ñëwee à l' assemblée nationale mu wax ñu fan la ñu jëm parce que ñun projet bi ñuy wax ba léegi moom la ñuy seet gisuñu ko parce que nee nañ projet bi finalement fin d' année lay pare te man jàpp naa ne quand tu as un programme de gouvernement boo ñëwee rek war nga ko mën a présenter Sénégalais yi mais man c' est la première fois que je vois ñu ne ministres yi nañu def seeni plan de ñëw dajale comme ça ñu lijjanti projet bi pour que mën ko indi. à la moi je que loolu dafa doon loo xamante ne nii. ça n'augure absolument rien de bon cela n'enlève en rien que ñu am une présomption boo xamante ne ni de bonne fois par rapport ak li ñu waxoon mais c'est important comme ni la ko waxee que ñu ne leen kat ah lii kat waxoon nañ ko defaguñ ko tey jii par exemple dafa am loo xamante ni dëgg daf ci am solo j'ai entendu les jeunes yi nga xamante ne ni ay mécaniciens lañ nekk au niveau de du stade Léopold Sédar Senghor à un moment donné am na loo xamante ni suñ ko doon def ñoom ñoo doon dem ànd ak ñoom ne nañu génn kenn waru leen dëgër piir nangam nangam xale yi sax li ma leen dégg mooy a ah, premier ministre Ousmane Sonko kat lii nga bëgg a def déguerpissement bi bokkul woon ci projet bi donc cela veut dire quoi cela veut dire que aujourd'hui les sénégalais se sont rendu compte que am na lu bëri loo xam ne waxoon nañ leen ko aujourd'hui ils voient que ñi ngi wàllu dellu man li ma leen di wax mooy ils n'ont qu'à se mettre devant les sénégalais wax leen li nga xamante ni moo mën a nekk wax leen li nga xamante ni jàpp nañ ne lii kat. war na mën a dem fii ak parce que comme ni ma la ko waxee on ne sera pas là di saaga di xuloo non jamais. mais mais mais Abdou personne na nous trouvera sur ce chemin. parce que on n'est pas comme ça. ñii tey bu ñu nekkee ils ont promis. S'ils ils ont pris des engagements non. ils ont pris des engagements. Hmm, c'est important. ils peuvent être dans dans l'incapacité de respecter ces engagements mais mais dafa am une situation bu ñu fi fekk. mooy yaa ngi naan dañ leen jébbal réew ak koom-koom bu bëri. absolument c'est un cadeau empoisonné. waaw mais attends waaw mais yow may mun a. c'est un cadeau barki Dembo Ndiaye barki Dembo Ndiaye barki Dembo Ndiaye. ah déggoo ñu ne. l'économie a été résiliente félicité Sénégal kan la ñuy félicité ñii di doog a ñëw la ñuy félicité fekk dañ ko fee fekk di muy benn beneen bi mooy projeté sept nangam pour cent pour la croissance. 7,2 loolu fan lañ ko fekk liggéey bu ñu fi fekk la. waaw mais waa déglu ma un budget. de mille milliards te l'actuel ministre des finances damay fàttali ne moo nekkoon le directeur de la programmation budgétaire donc kooku li ñu programme xam na exactement am na wala amul tey jii je pense que Maïmouna amul benn lay boo xamante nii war nañ ko mën a indi Sénégalais yi lu dul dund bi nañ ko wàññi. ndax nag aussi wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg rek président defar na tali. président defar na point. à quel coup président defar waa déglu ma rek coup bu am solo boo. xamante ni dañu féliciter Sénégal ci résilience économique defar na BRT. defar na li nga xamante nii mooy TER tali yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir réew mi defar na ko liñ leen di laaj yu njëkk te mu gën a yomb mooy dund bi nañ ko wàññi may mun a. boo ñëwee euh, pendant presque de deux mille vingt et un à mhm. jours. Mmh. Euh, le l'ancien régime dafa subventionné beaucoup de denrées de première nécessité. Absolument. Hmm? Euh, jël électricité bi doon ko subventionné. Uh-huh. FMI imposé na ko ak ay taxes yu ñu teg. xaaral ak ay taxes yu ñu teg boole ko ci FMI voilà l'État aussi renoncé na à tax taxes. beaucoup FMI imposé ne ko il faut que nga arrêter la subvention de l'électricité oui. pour réduire le déficit Président bañul. Euh, ah man man man ah, député laa de maa ngi ah, assemblée nationale. dafa bañ ba daaw. maa ngi assemblée nationale. dafa bañ ba daaw Moustapha Ba ba mu demee Washington mu signe benn document nangu ne fii ba deux mille vingt cinq dina ñu teggi trois cent milliards de subventions sur le sur l'électricité loolu moo indi l'augmentation de seize pour cent sur le prix de l'électricité c'est un document qui existe qui est ce que tu as vu le communiqué de la Sénélec aujourd'hui ma xaaral rek que tu as vu le communiqué de la Sénélec aujourd'hui xaaral ma ne est-ce que gis daaw ñu génne cent milliards ren dinañu génne waat euh, cent milliards ci li nga xam ne moom mooy subvention de l'électricité bi ak des produits pétroliers électricité bi dina dina dina dina yokkaat waa léegi nguur bu ñëw FMI nekk ci position de force xam na da soxla xaalis mu ne la il faut que nga nangu teggi subvention yi sur les denrées ak sur si wàllu éducation ak sur l'électricité léegi fan ngay wutee xaalis. waaw xam nga foo koy wutee. fan ngay jëlee xaalis boo dérouler sa politique. économique xam nga foo koy xam nga foo koy wutee. waaw da taxaw ci sénégalais yi nga ne leen président Macky Sall la nguuram ñoom mënuñu. président Macky Sall ak nguuram dañuy yokk électricité bi président Macky Sall ak nguuram dañuy yokk dund bi ñun su ngeen falee am nañ mécanisme ak loo xamante ni nii suñu xarañte la pour wàññi yooyu yëpp may mun a nañ ko wàññi foofu lañ ko war a jëlee ñoom man maa lañ koy wax man kay damay toog di xaar ñu wàññi ko damay toog di xaar la nga xamante ni ñoom lañ jige woon ñu def ko damay toog di xaar la nga xamante nii moom la ñu waxoon ne dañ koy yokk ñoom dinañ ko wàññ ñu wàññi ko damay toog di xaar la nga xamante nii mooy xale yi nga xamante ne dañ leen waxoon ne da ngeen di euh, nu ñu koy waxati euh, jox leen xëy ñu jox leen xëy damay toog di xaar la nga xamante nii moom mooy dégle yi ñu doon joxe